ci euh, jugement bi nga xam ni euh, waroon nañ ko amal à de Bougane Gueye Dany mi nga xam ne moom moo jiite gëm sa bopp euh, mbir mi nag agité woon na ci mantalement maanaam xel yi ku ci nekk rek yaa ngi doon xalaat ku ci nekk tamit yaa ngi doon sabab ab décision am yaakaar naa ni décision bii nii am nii nii nii nii nii nii dafay am lu bëri loo xam ne mu ngi koy jàngal ñu bëri ñu nekk ci ëttu politique bi ak ñi nekk euh, ci wàllu taskatu xabaar yi ak ñëpp bu ñu jëlee commencé ko par ki nga xam ni moom mooy kiñ jàppoon Bougane Gueye Dany comme li nga wax nee na euh, tëdd na ko euh, dignité waaye tey la gën a engagé wu tey la gën a ànd ak détermination pour xeex pour opposer wu là encore une dañ ko koy nangul mooy que voilà man dama yaakaar ni benn côté. réussir na benn mission mooy que politicien ñenn ñi bokk pour se faire voir pour se faire distinguer ak pour ñu xam leen pour ñu dégg leen li ñuy wax dafay am loo xam ne dañ koy créer wala dañ koy bëgg a créer muy seen benn statut réussir na côté boobu pour dugg kaso waaye nag dafay am loo xam ne il faut nga def ko comme jàngat mooy que am taxawaayu politique am kàttanu politique am doole politique ak dugg kaso ci politique dafa nekk ñaari mbir yu wuute. mën nga dugg kaso te amoo ora mën nga dugg kaso te fekk yow li nga bëggoon am nga ko bu boobaa da ngay réussir mais est-ce que la nga bëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci politique est-ce que véritablement am nga ko ba tax na sax jàppam bi ñenn ñi wax dëgg yàlla amoon ci yenn appréciation yu négative ba jàpp ni sax waruñu ko jàpp waaye ak lu ñu mën am gis nañ ni jàpp bi moom moo ko sàkku te wax na ko ci ay kàddoom mm-hmm. euh, moom moo ni jàpp leen ma walla ngeen bàyyi ma ma dem mm-hmm. seen une manière de dire que donc li nga xam ne bëggoon nga ko boo ko amee rek côté boobu mun nañ ni réussir nga benn côté sa mission mais est-ce que la mission en tant que telle euh, li nga xam ne moom nga am yéene ci politique est-ce que réussir nga ko wala est que di nga ko réussir ji je ne pense pas que méthode yii nii nii nii nii nga xam ne moom lay jël euh, dafa am lu mu doon xaar ci jàpp bi ça c'est logique booy analyser politiquement di nga xam ne dafa am lu mu doon xaar dafa am lu mu ci bëgg a ami mhm. mais est-ce que ce sont les méthodes là qu'il faut pour moom pour mu mën a am benn taxawaay politique bu dëgër est-ce que mooy méthode yi nga xam ne war na ko appliquer pour mën a am benn récupération politique yaakaaruma ko pour man bu dee bëgg na vraiment politique pour man bu dee bëgg na vraiment am représentativité Bougane n'a qu'à adopter d'autres méthodes yi nga xam ne c'est vraiment des méthodes bien définies bien stratégiques pour mener à bien sa lancée politique beneen côté bi mooy li may wax boobu côté la euh, mais euh, boo xoolee beneen côté bi dana am ñoo xam ne dañuy rafetlu li nga xam ni moom moo fa duppee comme résultat mooy que ñu ci bëri ñu jàppoon ni xam nga bu dee da ngaa nekk di yëngu ci politique waxoon naa ko fi ñu teel a ñu ci bëri lu ñuy wax état bi moo la jàpp ba tax na jàpp Bougane Gueye dann bi ñu bëri ils ont accusé le gouvernement Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu ne ñoom ñoo jàppalu et pourtant gis nañu feey gis nañu li nga xam ni noonu la waa ji doxalee ba ñu jàpp ko te moom nee na ci ay waxam comme ni mu ko waxee léegi moom lañ jàppul moo tax ma ni beneen côté bi ban jàngat lañ ci am ah man boog d'après mon humble avis nous commençons à avoir une justice boo xam ne ñun ñëpp moom la ñu amoon yéene am ko mm-hmm. mooy une justice boo xam ne du fi nekk pour être la justice du pouvoir une justice boo xam ne du fi nekk pour être la justice du président de la république une justice boo xam ne du fi nekk pour être la justice du premier ministre wala d'un ministre quelconque du gouvernement moo tax ma ni démb attentes yi bëri woon na ñi ci bëri seeni xel mu ngi doon euh, jiixi jaaxa mais lii rek dafay wan ni beneen taxawaay peut-être ñu ngi koy am dafay wan ne ni rupture bi nga xam ne ñu ngi koy sàqu ñu ngi ci yoon bi est-ce que dana continuer est-ce que du continuer ay laaj yu ñu mën a samp la waaye la ñuy souhaiter ak la ñu am yéene mooy mu continuer ñuy bañ a gis ay otages politique ñuy bañ a gis yenn yi nga xam ni c'est politiser des dossiers politiser et que c'était très logique li nga xam ni moom lañ ko toppee ak li nga xam ni moom lañ ko amande bu dee ñi nga xam ni ñoom ñoo ko jugé jël nañ li nga xam ni loolu la ñu taataan ci ñi nga xam ni ñoom la doon jàmmaarloo muy homme de tenue et ñu gisaat encore une fois benn taxawaay bu responsable bu justice taxaw après nag ñu xool fan la wànnante di mu njëkk bëtam est-ce que moom day ne di mener ces méthodes là de la politique non yaakaaruma ko bu dee mu ngi koy defi ji ah man boog digaluma ko politique c'est la base politique c'est la mise en œuvre des arguments des idées yi nga xam ni daf lay permettre nga mën leen a boole jaay benn projet de société au peuple et projet de société boobu noonu bu peuple bi épouser li nga xam ni moom mooy sa projet la bu boobaa di nga mën a am benn nit ñaari nit bu la topp ba nga am ay nit yu la topp et je pense que toujours pour réussir euh, cette politique la il faut que nga xool nan ngay taxawaatee il faut nga amaan beneen jàngat booy def et que jàngat boobu tamit tu n'as pas besoin de fréquenter certaines écoles tu n'as pas besoin d'être à Dakar Sciences Po non tu as juste besoin parfois nga xool comment est configurée la réalité politique sénégalaise nga jël kaaw Pastef jàng ci mais nag bu dee yow da nga bëgg taxawee taxawaay antagoniste bëgg a taxawee taxawaay anti-badassier comme ni ko honorable di waxee bëgg a xeex sànnante xeer for xeer sànnante xeer mën nga sonn te doo amee ji dara ci politique donc il faut nga defaraat say stratégie defaraat say méthode pour nga am daal foo xam ne di nga fa yegg. voilà honorable euh, Bougane Gueye Dany libéré nañu ko niki démb gis nañ bi mooy ñaareel bi yoon muy am ak yoon ay jafe-jafe ba ñu koy euh, libéré ndax jàpp nga ni anam bi nga xamante ni moom la jël pour amalee ko politique dina am dara lu mu koy apporteel ci li mu bëgg ci wàllum euh, politique. stratégie bi mu jël dee baaxul. Mhm. bii moom boo bëggee dégg dëgg. Mhm. avec tout le respect que je lui dois. <coughs> soxna mhm. baaxul. ñii mënuñu ñëw am fi weer xaw ma ñaari weer. nga ne yow ci opposition nga bokk nga yéeg leen gis nga Ousmane Sonko même bu dee dafa ne man soxlawu ma grâce dafa am loo xam ne xel moo ko mënul nangu. may ko grâce. du question may sax mais yow mënoo wax ne yow da nga bokk ci opposition nga ne yow da doon xeex Macky Sall Macky Sall daanu mais même pas ñaari weer ñi fi nekk nga ne dinañ leen fi jëlee. te nga ne élection locale danga nga defoon face à Macky Sall élection député nga ne danga nga defoon face à Macky Sall élection présidentielle nga ne danga def face à Macky Sall Macky Sall daanu jaara juróom-benn fukki fan ñaari weer lañ ko teg ñetti weer Bougane Gueye Dany ne ñoom joomaay nañ fi jógee. moom jëlal la ngay lëkkaloo waat ak Macky Sall. <laughs> sàmm sa kàddu dafa am ñoo xam ne waruñu fa toog. c'est sàmmuñu seen kàddu. voilà waaw ci la bokk. du mel ni Ahmed Aïdara bu waroon dem sàmm sa kàddu waa Kañ. waaw mais mais mais pour logique bu iñaan amul soxor amul. mais man ku ma dégg sàmm sa kàddu loo ma wax jaara yéen doo leen bàyyi fii ngeen di liggéeyee xam ne yéen kii moom ñu ko siqal moom dëgg dëgg fa yàlla bopp bi ndeke suñ papa la waaye suñ papa mi bopp bi daa commencé peer dafa am ñoo xam ne waruñu fa toog nañ waxante yàlla rek tax Abdou Fall mënoo xeex nit lu tollu fukki at ak ñaar ci li nga wax bu dee naxooñu mm-hmm. nekkoo dealer te li nga doon wax noonu tamit yow mosoo liggéey ak Macky Sall lëkkaloo ak ci suuf pendant dix ans ñu ngi la gis ci mbedd mi nga ne Macky Sall